waa ji daldi di fël ndab li mu këpp mu àbb lexum ndaw si tëgg ca pes moom sabab na riir mu tar ciy noppam daldi di dajalay gudaaram ñaan baatam dellu kër baayam ne kii kat mënta doonub sëriñam dafa amoon benn waay bu am alal waaye réew lool waa ji ak réewandeem jéggi na dayo ak réewandeem ëmpul kenn ci dëkk bi ak réewandeem xañ na ko lu ne mu amoon benn doomu nijaayam moom doon bëgganteen bi mu demee ba bëgg koo takk soxna mu dem ci nijaayam ngir mu may ko ko nijaay gi ne ko yow day sama doom ji duma la ko may te sax bu doon yow sam xel a ngi xalam di nga génne sam xel ci sama doom ji te xam ne duma ko may ndax sag réewande noonu waa ji daal di dem ci baayam jottali ko kàddu yi ko nijaayam wax baay bi ne ko sa nijaay kata yey ndax yow day sag réewande umpul kenn ca dëkk bi nit xam sag réewande yow mii ba noppi di la may doomam nit ku ni mel day gisaguma ko ci sunu biir mbokk yi gisaguma ko it ci dëkk bi noonu waa ji gise ak yaayam jottali ko kàddu yu nijaayam waaye yaay ji tontu ko nikki ko baayam tontu mu amuk jaaxle lool la waaye ndaw sim doon bëgganteel te di doomi nijaayam moom moo dem ci baayam ni ko baay man kat dama bëgg nga may ma sama doomu bàjjen bii ma sëy ak moom ndax moom day ni ngeen ko bëgg def dina metti ci moom lool ku say mokk daw bañ laa may soxna feneen foo demit am fa soxna dina jafe lool waaye ba ne ko du ma la ko may te nga génn ci sa xel kii ak réewandeem boo sëyee ak moom si musiba dong nga ci jële waaye ndaw si dëgër bopp ni ko bàyyi may ma ko rek man maay sey te mën naa muñ baay bi ni dënn ba yàgg mu ne ko ayca kon yaay sey te mën ngaa muñ ayca noonu ñu may ko waaji ndaw si dem sëyi ba mu demee ca kër ga ba am fa ay fan mu am benn bis waa ji togguloo ndaw si ay ganaar ndaw si newee ci waañ wi ba waxtu xéewalu jot mu am benn taalibe taxaw ci buntu kër gi di yalwaan ndaw si dégg ko te bu ci xéewal gi dem di ko sarax mu yeggee ci taalibe bi di ko jox ngir mu def ci ndabam noonu la ko jëkkër ji gis dal di ñëw ne ko yow looy def nii waaye laataa muy tontu rek naa ko ki ab taalibe la waa ji dal di fël ndab li mu këpp mu àbb lexum ndaw si tëgg ca pes moom sabab na riir mu tar ciy noppam mbokki internet yi seen mbokk seen xarit Ousmane Ndiaye directeur général Boga Bio moo ñëw di leen présenté seen produit yi day tey la boo xamante ni tout ce qui est interne wala muy hémorroïde externe daf koy soigné su fekkee interne dañ lay jël dañ lay wax nga jël ko mais su fekkee da nga amee hémorroïde externe dañ lay wax nga boole ci pommade bi. waaye yemu ca mu dóor ko dóor ba mëneesu caa yegg noonu ndaw si dal di ne cim xelam. kii day dama jàppoon ni xelum xale ko jàpp waaye dëgg-dëgg kii xelum xale jàpp ko waaye réewa ne tigi moo ne ci moom noonu ndaw si dal di dajalay gudaaram ñaan baatam dellu kër baayam ne kii kat mënta doonub ginnaaw bi ndaw si tasee dellu kër baayam bam fa nekkee ay ati at mu am benn waay mu ñëw ñaan si ko soxna ñu may ko ko mu dem sëyi sa kër waa joojule benn bis jëkkëram ñu yees jooji jox ko ñetti ganaar ni ko togg ko ni ko a ah, teemaa togg genn gi rek ginnaaw nun ñaar lan mu ni ko toggal yëpp rek ku ci yàlla boole rek mu bokk ci mu dal di jëfe ndigal togg ñetti yëpp ba reer jotee ñu xewloo genn ga ci ñaar ya ay simili gannaaw bañ reeree ba noppi benn taalibe taxaw ci bunt kër gi di yelwaan te ndongo reer borom kër bi ne ko jëlal genn ganaar gi nga jox ko taalibe boo bii noonu naa la ko ci yàlla boole nu boole ko ci lu ni mel la ma taxoon di wax noonu ndaw si daal jël genn ganaar ndaw si bi mu ñëwee ci buntu kër bi yem ci taalibe bi ni ko jàkk dafa daldi di wëlbatiku daw booleeg di yuuxu daal di yegg ci borom kër bi laxasu ko mu laaj ko lu xew mbaa jàmm daf laa duma daf laa duma ndaw si yuuxu rek mu laaj laaj lu xew ndaw si yuuxu rek ba yàgg moo ni tekk daal di dal ni ko wool taalibe bi mu ñëw waa ji woo taalibe bi mu ñëw ndaw si ne ko taalibe bii kii moo nekkoon sama borom kër li ma jële woon këram moo di dama doon sarax ab taalibe mu këpp ndab la waaye teg ci duma ma duma yu metti loola moo sabab sunub sëyi tas waaye waa ji muy borom kër bi ne ko alhamdulillah alhamdulillah taalibe boobee mu këppoon ndabam mooy man mii alhamdulillah ndax am saxul dëgg la waaye ñàkkit saxul dëgg la lu ciy waay di dund rek. Hmm. na koy rafetal. Hmm. te lu waay di bañ mu dal ko. Hmm. na koy moytoo def moroomam. wér na.